nit bu buggee am fula su ma nee tontu sax mën na koo fomm rek bàyyi bañ ma ko waxee nag te may élève bu neex xel ma seetlu mbir yi gis nag ay nit di dal sama kaw dégg naa sax ku ñuy tudde kunkaane xawma bu dëkk fii di dal sama kaw waaw waaw waaw am na ay gaa nag yoo xamante ne ñu ngi dal sama kaw waaye dama mën a seetlu yàlla suñu borom moo ëpp doole ku yàlla bind ku nit bind wala ku yàlla bind parce que moo bind ñëpp am na ñu ma tontul sax waaye xam naa ne yéen a leen bëgg a rey waaye problème bi du foofu problème bi mooy booy politique da ngay wóolu yàlla yàlla bi nga xamante ne moo def Matar Ba bii ci dëkk bii ñu ne ma doon fi jànge en 1981 la ñu laa ñëw Fatick ñëw di fi jàng tollu nii nekk xale bu ndaw ba may jóge Fatick mbuusu 100 francs la yor ba may jóge jaxaw mbuusu 100 francs la yor muus yu bële yi xam ngeen ko ci la samay yéereeg samay dàll yëpp newoon te feesul ma ñëw jàng si fii yor benn tiset di ko sol ba caam baro sax dama doon woo ne ma xanaa lii rek nga am ma ne ko waaw bu ma jàngee ba guddi bu tilimee dama koy fóot bu ma xëyee sol ko dem jàngi su dee Matar Ba 1981 laa nekkoon fii di jàng ba su ma wàccee damay xiif ba duma ko mën a muñ ma dem fi ñuy jaay gerte di taaraar may jiixat gerte pour lekk su foofu sottiwul ma doxantu ba kër Antoine di xool maire yi bëti yërmande pour ñu tibb ci gerte gi parce que dañ koy sàcc jox ma ko te buñ ma ko joxee bu ma gestoo gis ku mel ni grand Ali nekk ci li ma nekk di ma xool bëti yërmande ñu xaajoo li ñu yor su dee kooku la yàlla mën a def le maire de Fatick war ngeen xam ne yàlla rek ay dëgg loolu nag moo def ci man ngëm goo xamante ne lépp lu nit mën di wax damay xool ndax yaa ma gën ndey wala yaa ma gën bàyyi su ma gisee la contraire duma la tontu dama lay bàyyi ak yàlla te di dox sama dox ànd ceeg gor ñii di ay jeunes ak ay jigéen ak ay mag pour le développement de cette ville qui m'a tout donné lii may nett lii dama leen koy wax yéen xale yi parce que bu méttee bu leen bàyyi su ma dëgëruloon damay bàyyi jàng waaye dama téye ba yàlla dogal li mu dogal tey kon xiif wala mar wala rafle wala bala am liggéey war da tax ngeen toog seen kër yi gëm leen seeni waajur jàppale leen déggal leen te nangoo liggéey am jom noo mënti def am yàlla lu mu teg seen loxo dama leen ko wax parce que ndaje mi neex na waaye jàmbaar dëgg bu méttee ci lay am jom moo tax ñi may kobos am na gaynde guy dund ci man waaye nag laalaguñu ma parce que li ñuy wax amul solo am na ñoo xamante ne yàlla ci boppam moo def ci man sutura am na lu ma dul wax waaye am na ñu xam te di wax ci suuf du ma nettali parce que bu ma nettalee Fatick yàqu parce que sànnikati xeer boo xamante ne xamul ne añ ba muy añ ki muy sànni xeer participer na ci kooku jarta topp dama bëgg ngeen xam ne amul kenn ku nekk fii ku ñàkk fayda ñii fi toog ba ma gëjee gis ñu gisante yàgg na ñii am na ñoo xamante seen kër xaw ma ko dugguma fa mais ñu ngi nii toog lan moo tax Macky moo tax lan moo tax Fatick moo tax lan moo tax ñu yar leen ci ngor yar leen ci dignité su ñu gisee injustice bu ñu jóg ñu ko tey